waa man maa ngi tudd Assane Diawara bokk commission jeunesse bu COSCAS nekk membre exposition affichage tableau bii nga gis ren lañ koy door a defar parce que lu tax ren ren mooy cinquantenaire Coskas defe naa moom la moom la sunu mbokk yee di wax jubilé d'argent xaw ma jubilé d'or waaw mooy cinquantenaire bi 2018 parce que ça a été créé en 1968 ren nag nekk cinquantenaire bi ñu ne kon dinañ boole ci sunu affichage defar benn euh, affichage boo xam ni ci koskaas la lay wax ñu boole ko ci exposition ren bi ngir marqué cinquantenaire koskaas bi. COSCAS mu ngi signifier comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar si waaw COSCAS loolu lay signifier. devise su COSCAS mooy foi discipline discrétion comme ni nga ko waxee. lu tax foi parce que nit ki li ëm solo ci nit mooy gëm-gëm nit ki loo loo gëmul mënoo ci def dara. loo gëmul yi doo ci sóobu ba ni ko war a defee nga def ko noonu loo gëmul it mënoo ci jël responsabilité bi nga war a jël moo tax ñu jiital foi da ngay gëm gëm ba pare moo tax yàlla ci alquran sax loo daf ñu ko wax alif laam miim zalikal kitab laa rayba fii hudan lil mursalin allazina hum yuminuuna bila aybi da dangay gëm ba pare gëm yuminuun da dangay gëm ba pare moo tax ñu indi gëm ba pare ci membre COSCAS bi ngir nga mën a liggéeyal xadara bi nga xamante ni ci service unité bi la nekk waaw ginnaaw gëm bi ñu teg ci discipline boo gëmee te amoo disipline mënoo servir li nga gëm ba pare mënoo ko servir mais li nga gëm itam mënu la mënu la apporter dara ndax manque d'indiscipline bi te surtout nag mu nekk ci cadre diine ndax yàlla dañuy wax ni li ngay jotee ci moom nee nañ aljana coobare yàlla yàllaa fay dugal nit du jëf du dara yàllaa lay neex mu neex ko rek mu dugal la aljana xoolul ndax yow da nga baax xoolul ndax danga bon waaye ki koy gis ki muy recevoir mooy ki am discipline ku amul discipline doo gisante ak yàlla keroog yow mal xiyaam xam nga discipline boo koy firi dëgg-dëgg du doon sax yar mais teggin lay doon ndax nit ki dina am yar te du am teggin mais nit ki mënul am teggin te amul yar moo tax discipline boo koy firi dëgg-dëgg teggin pour nga jot ko dëgg-dëgg teggin nga koy indee mais boo ko indee yar rek day manqué mais boo ko indee teggin yar day dugg teggin dóor a ñëw discrétion tamit ñu tëjee ko ndax nit ki lépp looy def te amul sutura amul njëriñ boo fanaanee jaamu yàlla ba fajar nga xëy toog ci buntu pénc bi yii fudd waa lan la dama sonn dama fanaanee jaamu yàlla di ko def sax sa jaamu dootoo ci am dara ndax yàlla lépp lu muy defanteeg nit ki rek dafa bëgg mu nekk ci sutura moo tax ñu indi discrétion bi nga gëm am gëm gëm bu amul fu mu yem gëm bu teguwul ci dara maanaam bu teguwul ci dara maanaam xaaroo laaj preuve pour gëm déedéet da ngay gëm rek bila la ngay ci kumpa nga teg ko ci teggin ànd ak sutura moo tax ñu indi devise boobu foi discipline discrétion pour njaboot bu ne képp koo xam ne yaa ngi ci COSCAS rek première mission COSCAS mooy fexe non non approprier trois trois mots yi waaw ci gàttal daal moo tax mooy euh, devise COSCAS. COSCAS wax nga ko léegi historique bi mooy yaa ngi koy commencé ci xam nga. dañu ko def nii mais contexte de création sax mënul génn ci biir historique mhm. parce que looy indi historique am di nga indi fa mu tàmbale ndax grève bu 1968 yi moo amoon tombeeg gàmmu ñu ne xam ni mënuñu envoyé nombre hommes de tenue yu ñu soxla ci waawa Senghor ni dinañ joxe dix-huit personnes rek Serigne Cheikh Tidiane ñu ne nu ñuy def Serigne Cheikh Tidiane si radiyallahu taala anhu ni sër woo Serigne Abdou ne ko mais nañu créer suñu commission boo xam ni moo moo mooy organiser gàmmu ndax ñoom ay nit lañu ay góor lañu ñu nit ay nit lañu ay góor lañ kon ñoom lépp lu ñu mën a def rek ñun war nañ ko mën a def nii donte ne nag amoon na gàmmu ñu ko doon organiser mais nekkawuloon sous forme de cadre boo xamante ni dañu ko organiser carrément mu demee noonu comme COSCAS ni mu nekkee benn organe boo xamante ni c'est bien structuré demeewul noonu moo tax ci 1968 yi ci la kii bi indi ba ñu indi grève boobu taxawal ko noonu. pour raison de sécurité parce que xam nga état chaque fois sécurité lay xool ci raison de sécurité boo ngeen xoolee yàggul am na ci at yi ci ginnaaw temps wu Ebola bi rek am am na fi Mamour Cissé bu PSD jant bi def na ko fi temps temps wu donc choléra la temps wu choléra Mamour Cissé proposé ni pourquoi gàmmu gi duñu ko pousse parce que ñoom état question de sécurité lay xool. mais ñoom gis nañu leneen loo xamante ni ëpp na reporté parce que sécurité bi bi tax ngay sécurité bi nga koy def ba tax nga ni moom dangay ngay pousse gi pour sécurité bi mais gàmmu gi mooy sécurité bi ndax yonent bi ngay bi ngay taxaw di feete jikko yi ndax gàmmu dañ dafa xaw am benn erreur nit ñi dañu foog di judd yonent bi la ñuy feete déedéet feete wu ñu judd yonent bi de hmm? déedéet hmm? mais mais teddange jikko 360 vertu yi nga xam ni moo jóge kaw asamaan nga xam ni yonent yi kenn ku ne da nga ci yoroon benn dem ba jikko yooyu commencé raaf yonent bi ñëw bee salaat jikko yi ba jikko yëpp beesaat tax 360 yi mu mottali ko mu mut sëkk mu téye ko ci loxoom loolu la ñuy feete mais du juddu yonent bi kese kese déedéet te danga jikko yooyu la ñuy feete moo tax ñuy ñëw dajale nit ñi di leen wax jikko yu yonent bi yoroon mooy li Serigne Cheikh Tidiane si waxoon ni ñu buñ ñu wax yonent bi doxloo na gara buñ ñu wax yonent bi xar na weer bu ñu wax yonent bi wax loo na mbëtt bi ndax loolu ab yonentam la nañ ñu wax yonent bi amoon na ay soxna am nañu ay soxna nañ ñu wax nan la nekkee woon ak ay soxnaam yonent bi am na amoon na ay doom am nañu ay doom nañ ñu wax nan la nekkee woon ay doomam amoon na ay dëkkandoo am nañu ay dëkkandoo nañ ñu wax nan la nekkee woon ak ay dëkkandoo ngir ñu mën a mën a jël jikko yooyu mën ko approprier ba société bi mën a am dal moo tax gàmmu du fête ce n'est pas la ce n'est une fête de la naissance du prophète déedéet mais c'est la fête des vertus des de waaw c'est la fête des vertus moo tax loolu lañ ciy feete moo tax insécurité dëgg mu ngi demaan ci gàmmu waxtu ba nga ko war a def nga ni déedéet ndax gàmmu xam nga dañuy dafa am loo xam ni dafa am lu ko tënk temps da ko tënk espace tënk ko gàmmu temps da ko tënk mais espace tënku ko ndax foo ko defee baax na mais temps da ko tënk bu bu génnee temps boobu rek dootul gàmmu góor moo tax bi mu ko ko proposé Serigne Cheikh Tidiane si bañ gis ni ay góor a ko doon def ñoom ay góor lañu ay nit a ko doon def ñun ay nit lañ ñu def ko ci lay law booba le teg ko nag ci loxo Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine mu mu ko nekk responsable moral bi waa bi ñuy débuté bi ñuy débuté COSCA soixante onze personnes la woon ga gàmmu mujj gàmmu njëkk yi mais instant bi nag xaw ma egg avec exactitude ñaata membre lañ loolu bureau national ñoo la ko mën a parce que ñun ci commission la ñu nekk mais li indi yaatal bi bi ñu ko defee ba pare Alaaji Abdou dafa am cérémonie bu mu doon def mu wax ko Serigne Abdou ne ko na ko COSCAS organisé bi ko COSCAS organisé ba pare mu gis ci réussite mu ne ko ah, lii de am na solo yokku leen ko ni nañu ko def su ma juumulee mille personnes defe naa sëriñ Abdou sëriñ Mansour radiallahu taala anhu moom it borom daara yi gis ni gis sëriñ Abdou ne ko affaire bi am na solo yokku leen ko looloo waral ñuy yokk koskaas muy nekk ay section ay commission commission bi ci mujj judd mooy commission bi tey mooy commission jeunesse moo ci mujjee huit ans rek la defagum muy commission bi mujjee judd koskaas noonu lañ ko def ba koskaas yaatu ba àgg fii mu àgg tey waaw xam nga koskaas liggéeyu liggéey la maanaam ni nga ko mën a waxee xadara la concerné du état mais du tee li état bi mën a def ci gàmmu gi mooy CRD yi ñuy def xam nga dajeeg ministre de l'intérieur ak yi ñuy def ak pour xool ñoom nan la ñu mën a participer ci gàmmu gi pas financièrement mais physiquement ci wàllu matériel ndax am na matériel yoo xam ne yëpp ñun yoruñu ko ñoom ñoo ko yor ñu mën ñu ko yombalal yenn yi tamit ci wàllu force de l'ordre nit ñu ci mën a jàppandalee ci yooyu la diggante koskaas ak état nekk mais nekkul loo xamante ni dañuy ñëw di liggéey ak ñoom ci lépp mais déedéet dafa am juste loo xam ni état moo ko yor te ñun sur le plan matériel soxla nañu ko ñoom ñooñu ko mën a jox ñu liggéey ci ak ñoom teg ci fépp fu farata la ci état fépp fu peuple am di daje majorité majeure parti di fa daje farata ci état mu gérer seen sécurité loolu loolu moo leen booleeg état. tiwaawanu fiiha al yumnu lil muttayaa